si jàppale miss. dama jox sa namba ko. waaw xam nga moo tey. Ah. Njumaan. lu mu wax. ooy ngaay ngaay ngay toj. non ngaay kay xam nga nag ngaay lañ fa échec moo ëpp lañ gañe de. waaw suñu torox tànge ji moo ñu toog ba léegi yow boo ñu xoolee nii ñu toogee rek xam ne dañoo torox ñu nekk ñu. ah fi ma gis nii nii ni ma ko gisee nii dafa mel ni koñ la boo xamante ni daal calme na te mën nañ fi kii lu bari ah. surprise dara ay surprise. barki ñii duñ génn ay fii à papa fii saa papa fi am war nañu mën tekkal ko bi yëpp dem si ñoom comme jigéen nañ gaay kay. loolu kay après loolu kay moom yaa ko teree neex. boo paree rek pare na. loolu kay moom tënket. allo waaw yee Brenda comment tu vas ça va bien yii bu ko waxatee bu ko waxatee bu ko waxatee non non non non non non non yow sa papa dafa fiir yow sa da ngaa bëgg waaye tamit waaye waxal leneen ah dafa génn. que c'est sûr c'est sûr mi ngi nii allo cappali ci loo ne kañ léegi nii ma ni léegi nii léegi waaw da dak ah, bu fekkee nekk fa mu amul problème waaw baal après ñu préparé wu xam nga parce que sang bi dañu génnoon nii rek relax toog ñu waxtaan ak yooyu baal ñu préparé wu may ñu dans 30 minutes sax léegi léegi léegi waaw d'accord amul problème kon ñoo ngi ñëw t'inquiète loolu maa koy gérer ok ciao bisous bye te booy bi nee na ñu ñëw. waaw mais ñëw yow booy bi papaam nag yow da nga bëgg mu lekk ñu. nee na papaam nekku fi loolu la wax. nee na paa bi nekku fi kay nañ dem. dañuy sew gis yow. waaye loolu laa gis nga ma loolu nga duñ dem changé wala. loolu laa ko wax muy ma instant bi wóorul fët fët parce paa bi mën na ñëw ci diggante beeg yooyu te def la yëpp ñooy ngaay mënuñu fexe ba gisante ak ñëw nañ kay am nañ occasion nañ dem loolu laa gis ah. doomu nday waali ak Bako Jackson Thiam dem mu ñoo ànd baali ca samedi bu dégg jaa même waali amel na ma sept millions yu war a fay nee na tey su ko jëm ma ko fay mais est xam nga DJ Boubs moom du jug sama gàllee mu ngi fa guddeeg bëccëg jox naa ko caabi ba temps dafay sañ sa tijjee ko tëj même Pape Diouf ak Omaro ma leen di solal chaque jour yow ma wax sa nëmba ma ngeen te changer sa tur ana na c'est fii mais. ah mais man paa bi dafa fiir. non déedéet sama papa melatul noonu léegi changé na. waaw daa alkaati bi bàyyi dóor bu bàyyi dóoree. non expliqué. en fait ñun dañu am benn viseur bu ñu teg. sama waa ji dafa am benn série téléfilm bu mu bëgg a réaliser. comprendre nga. mais nag dafa laaj benn casting boo xam te ni il faut que mu développé benn deux cent cinquante mille waaw xam nga rek te sa waay si conteneur bi ma gis bi nga sanctionné ko affaire yi sotteegul te dama ni ko avec toi on peut mën nga si jàpp quoi en fait benn prêt boo xam te ni dinañ ko jàppale parce que jàppale ko mooy jàppale nga ko quoi en fait. ay monument lañ mu nekk nii. effectivement ñun ñëpp vraiment dañu naaw ñu ay xale lañ mais terewul dañu am jom. xamante ne aussi ba tey rëccuwul gis nañ ñu ngi jàppale tout ça. moo tax tey bi nga ñu woowee automatiquement dogguma la sax quoi macha allah dogguma la parce que kii suñu jàppale. Mhm. Euh, su ma ñëwee fii pour mu jàppale ñu daf ma yàgg jàppale. waaw yéen a baax ma yàgg jàppale ku baax la ci man ah. <laughs> maam ren <laughs> mais eh, nam naa nag trop quoi. <laughs> mais defe naa loolu du am problème. quand même non amul benn problème. Ah. amul benn problème. lépp kon dina mën a yemb nice alhamdulilah. waaw sinon nag. tàng na de. très chaud même. sinon. waaw mais yow est-ce que du bàyyi ñu dem. non toog rek. ah waaw mais. eh toogal. avec toi mais moi je l'aime ou pas sama kër ba. non non papa ah, mais man dama.

ñun ñun ñun. Eh, eh, mais comme eh, ma man ay sëñ Cheikh Ouna Mbacké ma ko ça c'est vrai mais lan ngeen di def sama kër daa wax. ki elle m'a que 14 ans ngeen bu ko non bul foog loolu la père. bul foog loolu. expliqué ko la nga nga nga ba fekk ñu la ba fii tasante ak ba nga ñëw yow lañ soxla. mais wuyu leen ma kii la jug leen samay sang jug leen ngeen ñëw ñu dem. jug leen jug leen ñu dem ci biir. ma retayal leen comme que ñëw ngeen ba te xale tamit ñoo leen ma retayal leen. prochainement boo leen ma soxla ngeen dégg maa ci biir. atelier la ñuy retayal. kañ la ñuy jug leen ngeen ñëw ñu dem salon fii ci biir ma ma retayal leen. léegi dañuy bàyyi ba après ñun ñu. ñëw leen maa ngi machine fii ci biir. mais Brenda que ça ne se répète plus ah. d'accord papa. allez. ah bon. gagal and unchanged. dem leen dem leen dem leen dem leen booy retaay ngeen soxla woon retaayal naa leen dem leen prochainement di ngeen xam ban kër ngeen dugg ici c'est chez Moussé Ndiaye prochainement dama xamee ma allez-y dem ma defal nii propre la la defal ak moitié souffès non da ngaa xamul sa bopp da mel ni lubi nii ca plein miss jox sa number call ak sa Facebook su ma la namee di la xool. yow yaay kan. ma borom oto borom château borom tous les temps ma la may galant l'homme idéal l'homme de doomu nday waali ak Paco Jackson Cham dem mu ñoo ànd baali ca samedi bu dégg jaam même waali amel na ma seen millions yu war a fay nee na tey su ko jéem bay wëndeel ma ko fay. DJ Boops. ban TFM waaw. moom du jóg sama gàllem.